Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàttee la cloche de notification bi ne ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage ajar ajira bi saar waaw ajira bi saar nee na tey dafa kase ala ajira bi saar asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di jox kenn ku ci nekk rek sa wàccuwaay bi ma seetaanee vidéo bi question bi ma njëkk a posé moy est-ce que Adji Sarr mi mi ngi des di and ak xelam question la bu ma posé est-ce que kii wax nañ ko li xew ci réew mi moo xam vidéo bi avant la muy def déclaration moo xam après mu def déclaration bu mu ci mënti doon est-ce que toog nañu ak moom xamal ko ni ko lu ëpp fukki doomu aadama ak ñeent ñàkk nañu seen bakkan ndax moom ndax yëg na ko ndax wax nañ ko ni ko ay junniy junniy junniy doomi aadama ñi ngi ay gaañu gaañu fi mu toll nii toog seen kër ndax moom moom Adja Sarr ndax wax nañ ko ni ko ay junni junni doomi adama ñàkk nañu seen alal ñàkk seen koom-koom gi ñu doon yaxantu ay ati at ndax moom ndax toog nañu waxtaan ak moom ci junni junni doomi aadama yi nga xam ne ñu ngi toog seen kër ñàkk seen liggéey seen njaboot di tumranke ndax moom muy bég di xàppi di belli c'est pas le moment vidéo bi moma gëna metti ci mbooleem problème bi bi mu tambalé ak légui déclaration bi sax météo mais li moma gëna metti que déclaration bi ça montre lan lan la bëgg wané que yéen way jur yi suul seeni doom dunduma leen yéen li ci ñàkk seen liggéey faalewu ma leen yéen ñi ci wax boobu ba léegi lijjantiwu ma leen c'est ce qu'elle veut nous montrer sur cette vidéo c'est du n'importe quoi dama ko yërëm à toute sincérité dama ko yërëm dama ko yërëm benn xale bu ndaw boo xam ne yëgul luy réer ci réew bi xamul lu xew ñu di ko utiliser di ko def loolu ko lu leen neex te elle n'est consciente de ça tey dama jooy ci suba bi ma seetaanee deuxième vidéo bi di ki ñuy wax Xadi Njaay bi mu gémmee bi mu génnee kaamilu alquran teg ci dënnam di waat wat jëm ci kan jëm ci kàdduy aja sar di ko wax ni ko li nga wax ci sa déclaration ni moo dox sama diggante man ak yow teg naa sama loxo ci kaamil giñ ci sunu borom ni bu dee am na yàlla naa gën a torox ci lu yàlla bind ça veut dire quoi ça veut dire ce que ça veut dire ah oui mais ça veut dire ce ku waat nga doon xaar ku jàpp ba sell lalte teg loxoom ci kaamil waat nga doon xaar Xadi Njaay def na ko Xadi Njaay def na ko moom weddi na ni liñ ko waxal lépp lépp dara amu ci beneen bi ci des may wax ak jeunesse bi di wax ak ndaw yi lii gis nga ku mu doyul leçon laa ne dara dootu la doy aji saara ngi ci ay activité naam sekestration lay oote manque de liberté pour mën a am doxi ay soxlaam mais ma ngay bëgg ma ngay xàppi tey itam ma ngay billi kam ko séqaloon di Ousmane Sonko tax tey ñu bari ñàkk seen bakkan ngir liberté tey famille yu bari suul nañu seeni doom ngir liberté am moom Ousmane Sonko jeunes yu bari ñàkk nañu seen liggéey pour faire liberté mon Ousmane Sonko même pas 15 jours des faits mi ngi commencé di amal ay activité politique am gis que bu dëgg jotee dañuy xoolante ci biiri bët waxante dëgg bi mbir mi xewee avant muy am une semaine l'année, Ousmane Sonko commencé à avoir ay activité politique avec des rencontres par-ci, des rencontres par ça, des rencontres par là. amul ben remords bu wan pour wan au Sénégal que je pense aux martyrs Niak ñàkk seen pour sa liberté la preuve gis ngeen ko fan yii yëpp mi ngi def ay visite ci lan ci média yi nga xam ni ñoom lañ doon néewal doole ani nit ñàkk seen bakkan ani nit yi ñàkk seen bakkan lan lañ leen di honoré ñoom ñoom lan lañ leen defal ñoom lan war na doy sëkk leçon mboolem kuy jeune nga xam ni politique say ma sàmba politique say ma ba ñoo ci bokk yam ku ci ni liberté politique say jaral na ma sama bakkan bo déwé sa njabotay ñak ku fi tok di wax ni liberté politique say jaral na ma ma ñak sama liggéey boko ñaké sa njabot ko yépp

dafa war di xool ci situation yi ci biirum réewam mu jël ci exemple mu koy servir leçon te defe naa problème bi képp kuy ndaw war nga ci jàngat bu baax a baax a baax a baax muy ci tege tuuma muy jëkk ñu teg tuuma jàngat bi interne lay doon du lu analyste yi duñu wax ñu koy jàpp déedéet du ay boroomi xam-xam ñoom ñooy génn di ñu wax déedéet ajee tooñ aji lañu tooñ aji tuuma Ousmane am dëgg on s'en fout parce que yeen ñëpp vous vous foutez de nous et c'est ça la pure réalité c'est ça la pure réalité que ñu bëgg ko dégg wala ñu bañ ko dégg fi nañu wat suñu xel nañu wat suñu xel nañu wat suñu xel ma ngi tuba bu baax tay jéggelo ci kaddu yi lu ci jup ngeen xam ni ndimbal ak katanal borom bi la lu ci dëng nag ci sama matadi la ak ci sama gàtt xam-xam ngeen baal ma ko di leen jox dig daje insha allah rabbi ëllëg ci beneen vidéo assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dé gan nga ci kër gi nak, bëssal bouton abonnement bi teg bul faté activer walla cloche de notification bi dé, ngir baña a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si et maintenant bon visionnage